jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom borom Touba jërëjëf borom borom Touba ragal péete mën naa tax ba nit ñàkk lam amoon banaa ñépp tey faf mooy ci buumu borom tuuba jaloorey borom tuuba xanaa rëy ga yéem na leen da ko nettalil boppam ku mën tey na moom tuuba fa wallaahi ànd ak yow bisub piñ ci doy na lay ku juuyoog sëriñ tuuba du gis gaay jëm tuuba bu ni xoon borom tuuba ku di nag torox fasa sëkkat yërmandeem jaa tax le kon kenn du dem Touba rëy jëf te wit ca lool xuloo dawoo jaaxle xanaa men mbubbum ndam mi am yaa ko sol Touba waxoo naa budul kon diw samay mbir du jëm kanam danga jéggi mbindéef yépp lee tax nga am Tuuba mosoo daw ngirub saay saay tawaajoo fi dégg tey bu koy pont doon jam dootu tal mukk waa Tuuba talooy wax mosoo faat waxtu assalaamu njiitu Serigne Cheikh jawriñu Serigne Saliou ak ci jotaay ak moom yëpp suñu kilifa yu baax yi toog di ay njabootam ak mboolem jawriñ yi kàddu yi nag ñu ko sëriñ bi tënkee gàtt na lool waaye buñ ko saraa mën nañ ko jee faraan kon ñu ñaan Serigne Touba mu dimbali nu ba lan wi mën a jot li kàddu yooyu danañ ci lot lool waaye yal nañu defal tawfiq te bu jógee ci làmmiñ ñu xol yi dégg ko noonu sëriñ bi nee na ñu ngi leen di nuyu te di leen sant mooy cant gi itam mu ne cant gi itam du mat a guddal ndax ki tax ñu sant mu ngi ne jàkk ak bëtam dina xool mu ne ñi ñëw ak ñi ñu fekk ak moom ñoo ko ko pas-pas te mooy liggéeyal Serigne Touba nee na pas-pas boobu nag yàlla na ko Serigne bi sàmmal te sellalal na ko ci barke Cheikh Khadim te moom mi taxoon ñu liggéey te mu ne jàkk dina xool yàlla na fayal boppam ci barke Serigne kon Serigne baa ngi nuyoo baax te sant di sant yi nga xam ne yónnee woon na ci ñoom te ñoom ñëpp ñu teew ngir jàppale ko ci liggéeyu Serigne Touba bi nee na kilifa yooyu yëpp mu ngi leen di sant bu baax a baax di sant itam mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom itam si nañu ànd ak kilifa yooyee di ñaan Serigne Touba mu nangul seen liggéey di sant bu baax di sant bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñëpp taxaw nañ ci liggéey bi ñii seen i doole ñii seen i xalaat ñii seen alal ñii seen i jot ñoom ñëpp Serigne Touba leen di sant di leen ñaanal Serigne Touba mu yokku di ci beral nag ak cant. taalibeem bii di taalibe sëñ Saliou mii ni toog ci taay bi nii sama weer xam na li muy daj ci bi ak li muy daj ci lëgal ngir sëñ Saliou kon mi ngi koy ñaanal tey sàkku taalibe yëpp ñu ñaanal ko tey sàkku taalibe yëpp itam ñu ñaanal leen te suñu biir ñu doon taalibe sëñ Tuubaa ba faaw te seytaane ba ñu fëkk bànneex ba ñu fëkk adduna ba ñu fëkk sëriñ baa ngi sant bu baax mi ngi sant bu baax bu sëriñ bi santee rek nag daanaka wax ji jërëjëf Sara lépp day daal di mat sëriñ bi sant na te mi ñaan. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon seen xaar ñaanal ko gaaw xatum wam sa léegi gis nañ tayam di gàccee li démbam renam dàq daaw ña daa takk njàngal te koy jéema lor ndaxam seeni jeexit saxul lépp fa saaw ña sampooni ko nas lu bon amuñ ndam te laaluñ lañuy jéema laaw dañoo mbëkk ciw doj ba seen bopp toj ñu yoñ seen mbir wasaane pitaaw bañam yépp jiim nañ mu des fii bérëx mbiram jëm kanam seeni mbir jëm gannaaw li ci wëñ di xancak di fas ba dam dillu seeñee palem seeni xaaw ña daa wër di daanak di rangoy tëndën ësël tey bëggoon nañ di buurub jaxaaw mbërumu yàlla maa ngi te maa koy wayal te duma deeti fendal ba bis bañ ma nga wayal te duma deeti fendal ba bis ma ngaaw donuy Mustafa ngi tadib xaadimam te moo duy bagaanu ku fi ñëw baaw ña doon baaw ba waameem walee kiinu nañ bu leen gantu waameem ba seen mbir di ñaaw bu réew mépp maaseen nangul kokuma yam te jiital ko kon leen janam bu réew mépp maasee nangul kokku mayam te ko kon leeg nu mel ni